Bassirou Diomaye Faye démb euh, moom foofu la ca Ziguinchor ànd naag Ousmane Sonko wax na nag ba tudd wàllum déclaration patrimoine nit ki daal wax am amam mu ni nag Amadou su fekkee ni euh, ñeme na ci lu mu nekk na génn wax ak Sénégal li mu amee ci wàllum am am comme moom ni mu ko fas yéene defee bu dee ñeme na ñu mos ci aslëf te dellusiwaat région boo gis Sénégal am na potentialité maanaam am na loo xamante ne ci la ñu war a mën a sukkandiku pour développer ko lool moo tax dañu jël Sénégal xaaj ko en six pôles régionaux six pôles économiques régionaux président Ousmane Sonko wax na ko sax ci vision territoire du développement bu mu bind avec le frère Bala Moussa Fofana ñuy wax ne day am cohérence aménagement du territoire bi ñu duggee biir Casamance ba tey lu ñuy séntu mooy département yoo xamante ne bokk na ci yu gën a Sénégal chômage gën a bare te pourtant ni ma ko doon waxee dëmb biir Ziguinchor noonu laa ko mën a waxee dans toute la Casamance naturelle bu ñu jëlee le potentiel de la Casamance naturelle muy Sédhiou muy Ziguinchor muy Bignona muy Kolda gi ñuy jëm après amul fenn koo xamante ne koom ak naataange war a faa mën a nekk ku ci nekk war na mën a nekk un centre d'activité économique boo xam ne lépp lu fa waaye war a mën a def mën na ko war na ko bëgg a a def loolu mooy lu ñu wax démb ci idée wu fi ma doon wax bërëbu Ziguinchor bu ñu xoolee potentiel am war na mën a nekk capital économique capital culturel mais Sédhiou gi tamit war na mën a nekk capital économique capital culturel donc loolu mooy idée wu pôle économique yi loxo yi ay loxo yu set lañu def naa 15 ans impôt ni sama mag ji président Ousmane Sonko amul kenn ku lay wax biir Sénégal mos naa jël dërëmam bokk ma ci fonctionnaire milliardaire yi laaj réew mi pour gën ñoo dugal ci ndóol di gën a defar seen bopp. te lii dinaa ci andi firnde gu leer ci semaine bii de semaine bii dinaa wax sénégalais yi sama alal nu mu toll muy sama déclaration de patrimoine ku ñeme na def ku mën na def may invité candidat yoo xam ne nekkuñu woon lenn lu dul ay fonctionnaire ku mel ne Amadou Ba na déclaré patrimoine am ni ma ko nar a man. mi ngi noonu ñoom ñu nekkoon impôt et domaine euh, Ousmane Sonko noonu ci wetam nee na magam jooju mën na koo firndeel def na fa 15 ans euh, kenn mësul wax ni sàcc na fa benn dërëm comme nag Ousmane Sonko daan waxee su fekkee am na nañ ko wane mu ni nag euh, amatu Ba nag na génne am-am su fekkee ni ñemee na def loolu la tax moom dana ko def wan Sénégal li nga xam ni moom la amee Assane Mesre. waaw Amadou de bu fekkoon ni day def déclaration de patrimoine maam day doon loo xam bu ñu teg Sénégal. lii maam day doon loo xam ne dañ ne loi bi bala ngaa doon candidat da ngay wax li nga am waaw. loolu dafa waroon a bokk si loi bi mais comme que bokk si loi bi. da ngaa waxoon sànq ne yàqalante la tey defarante la ñoom <laughs> ay loi. <laughs> dama ne ñoo woon sànq yàqalante la. waaye léegi tey ñoom yàqalante wul dañu ni nañ defaralante. ma ne lii yàqalante la lii yàqalante jamaay waa ji jamaay mi day yàqal Amadou Ba ba tey. kaa ñu leer li ñu am yàqal la yàqal la. ah moom fekkee daa yorutub xaalis na xam ne yorutub xaalis rek. kan moom jamaay mii. 15 ans la fa def. waaw impo waaw di buntu xaalis. buntu lekkukaay Amadou Ba ñaata at la def. Amadou Ba. non bu dana ko xëy na. ah xam nga koy xëcc ci terrain bii léegi ñu ngi xaar ndax. Amadou terrain bi football ñu si. <laughs> demuñu <laughs> leeraluñ. jawal <laughs> na ko leer ni loolu moom bu am lu ci leer conseil neen moo war a na wax ni balaa kenn doon candidat da ngay wax li nga am. waaw. waaye nag comme que moom kan conseil constitutionnel waxul li mu am Amadou Ba du fi nekk di wax li mu am di wane ni daa am xaalis ak kii moom Amadou Ba moom du def loolu. Mhm. waaw Amadou Ba nekk na foofa liggéey na am na fa wërsëg mi ngi ak wërsëgam point. mais simple ñu ne mënut am lu toll nii. moom directeur la woon Amadou Ba directeur la woon te directeur. fu ne la xaalis bi génne. fu la. xaalis bi mën naa génne fu ne. léegi loolu. yàlla defal na ko sutura daal am na xaalis bu muy génn xaalis bu génnee ci suuf ak di pulet pulet da nga ko mas a gis ah waaw kay saa ay canal ak yëpp lañ am seen saal yi mooy la canal bu ñuy def xaalis ak yooyu ak banque yeeg yëpp ay borom alal lañ de am nañu war sa de ndimbalu yàlla la daal ndimbalu yàlla waa léegi nag moom bu fekkee ne kandi ay candidat lañ ñu ngi laaj baatu askan wi bu fekkee ne yàlla dogal na kandidaa gagné candidat bu mu mën a doon bu ko loolu concerné na wax ni hmm, waaye boobaat candidat yi si des du gañewuñ de mais balaa kenn falati benn poste moom bu fekkee ni Amadou Ba gañe balaa fal kenn nag kooka leeral li mu am. moom nag. ah bu fekkee moom mii jo kii yee gañe. moom moom Amadou jarul muy leeral li mu am. Amadou Ba bu fekkee ni maam Basirou gañe exemple bu ko Basirou dee duggal si gouvernement bi bala koo dugal na leeral li mu am. ndax man yaakaar naa loolu sax ndax ñii dañuy politique mais ñoom ñëpp en tout cas nañoo ànd liggéey pour Sénégal jëm kanam. yaakaar nga Basirou gañe ñu ko kaay liggéey. waaw mën naa nekk kay. liggéey moom liggéey la élection yi moom. Mm. na Sénégal na si Sénégal gagné rek man daal na Sénégal gagné rek à part Sénégal gagné moom sama yoon. Bassirou leeral na li ñu doon wax sànq nee na wat lim na ay kii daan ni war naa mën a nekk nangam bokkul ak fii dama koy def capital. Mm. waaw. waaw capital économique. waaw. économique. ak capital et nangam. Eh, yaakaar naa ne capital boo xamante ni si wàllum njaay ak jënd. dana fi dox. waaw waaw loolu moom. capital yëpp la war a doon Amadou waxoon waxu ko war naa mën a nekk la hmm? ma ne Amadou nga dañuy dañuy jël capital Ndakaar yóbbu ko Ziguinchor. waaw ak fii war naa mën a nekk capitalu économique. waaw maanaam capital boo xamante ni wàllum jaay jënd dina fi dox. waaw loolu la wax. waaw waaye Amadou moom lee mu jëlit benn la rek mën naa mu nekkoon ci xalaatum Basiiru xelum Basiiru mu wax ko loolu kenn mënu ko ko bañal. mais loolu lu am solo la na nañ fexe daal quatorze régions yëpp doon ay capital économique hmm. réew mi mën a dox ñëpp mën a am liggéey bu ko defee ñu mën a noppalu képp ku siy gagné daal hmm. na taxaw si yittey doomu aadama yi. d'accord ndax Sénégal yi sonn nañ gis naa ku sant si la kuy bind quarante cinq milliards yu Amadou Ba loolu Amadou Ba fa koo mën a am fu mu koy jëlee. Hmm. quarante cinq milliards rek quarante cinq milliards. xanaa loolu budget Sénégal. am daa sax. waaw vingt. vingt milliards. vingt milliards fu ko wër wër am yow. Ah, yow moom bu ko yoree li koy tuumaal dëgg la. 45 la kii wax yow nga ne 20 wër ko am. ah déet damaa xam ne kooku la koy tooñ rek 10 it ko am. ay milliards dégg naa da nga koy tegale fii ba Touba di loolu mën nañu ko tegale fii bii 10 000 10 ba Touba loolu kenn nit da ko mën a am ah. Alaaji hmm. noo gisee candidat wu Pastef wax na ba tudd ñaata at la def foofu la ca euh, impôt tudd am amu ki nga xam ne mooy Amadou Ba. waaw. Eh, moo lay wan ne la <coughs> Sénégal moom mi ngi jëm léegi ci yoon beneen yoon yoon woo xamante ni bii yoonu eh, kii la xam nga bu ñu demee bu njëkk ba. Eh, politicien boo ñëwee xam nga lu ñu lay wax. Hmm. boo ñëwee bëgg a politique dañ naan la est-ce am nga alal. Hmm. boo amul alal moom doo ci dugg. léegi bu ñu demee moo tax ma ne dëkk bi mi ngi changé parce que bu ñu demee ba léegi politicien léegi même ñi am dañ koy nëbb. ñu ko amoon. waaw day ñi am alal. Mhm. ñemewu ñoo wax seen alal kon loolu moo lay wan ne la am na fu ñu jóge am na feneen fu ñu yegg. Mhm. parce que bu njëkk bi alal da daan muur lu bari. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee sotti xaalis rek wut seen ñu leen di waxal ay borom làmmiñ yu rëy yor micro di leen waxal ci télé yeeg rajo yi <clears throat> yëkkati kàddu. diw nii naa nële. te diw deful dara dara nekkul ci bopp bi bu ñëwee tàllal loxo ña koy jiite sax di njëkk a wax ne ñooy leeral programme bi ne li lépp moom la bind fekk moom dara nekkul ci bopp bi mu yëngal bopp bi daal di siiñ gars yi ne ah ndeysaan macha allah kii ngand la gis nga ko li mu jiital ci oto léegi loolu euh, kenn ñëwewu ko si bu ñu demee tey jomaay li mu wax ni xam nga li intéressant ci campagne u jomaay bi mm-hmm. Euh, par rapport ak campagne u euh, les autres waaw maanaam ñoom seen campagne bi da lay na la campagne la boo xamante ni bi askan wi ñoo ko financé waaw loolu la ñu waxoon ay levée de fonds nga ay levée de fonds lañ def askan wi ñoom ñoo ko financé maanaam mm-hmm. loolu mooy avance bu rëy bi nga xamante ni bi am nañ ko ci les autres mm-hmm. léegi lii mu wax nii nag dafa am solo parce que dafa am loo xamante ni bi moom xam naa ni li Assane wax mm. même bu fekkee ne loi bi kiiwu ko it ñu yóbbante ko ñi nga xam ni ñu ngi waaj parce que am na loo xam ne bi dañ ko war a firndeel parce que am na loo xam ne bi daga na lool waxoon nañ ko fi xaw ma ndax kon na loi wala nekkul loi nag waaye waxoon nañ ni. Mhm. Euh, déclaration patrimoine président Macky Sall yàgg na cee force sax ministre bi. Mhm. Mhm. mais defe naa ni gars yi ba léegi kenn defut. demuñu fenn wax. waaw parce que am na loo xamante ni bi xam naa ni yor nañ ko mu bari lool ñemewuñ koo tudd. waaw te déclaration patrimoine euh, dafa nekk ñaari mbir dafa nekk ñaari mbir quoi. waaw déclaration patrimoine. Euh, man moom wax dëgg fa yàlla. waaw. Euh, parce que bon am na ñoo xam ne boo leen gisee rek xam ni yor nañ alal joo xamante ni bii moom. Mhm. Euh, du liggéeyee leen ko may. Mhm. bon wala njortu nga ni lii moom liggéey mayu leen ko parce que boo calculer fi ñu jaar ak et cetera comprendre nga. Mhm. mais xam nga ñun ñii tey. waaw. dafa am loo xam ne bi c'est africain quoi maanaam ah. euh, pareen saa yi Afrique nag par bu ñu bëggee tamit jóge foofu pour dem fële il faut am yu bari yoo xamante ni bi tamit yoo xam ni kii la parce que nit xam nañ naan la nit fi moom boo ñëwee dañ lay yar da ngay nëbbatu am na yoo mm-hmm. xamante ni bul wane lii bul wane lii xam léegi nag nga di ko wax mm-hmm. ne am naa lii am naa lii am naa lii waaw eh, loolu Afrique moom gars yi du ñu ñeme di faral di def lu ni mel waaye nag Mm-hmm. dafa am yoo xamante ni tamit ndomba tànk bu fekkente ni dañ la ko war a jox yenn ndomba tànk yi. Mm-hmm. am na yoo xam ne bii tey boo exigence la war a doon tamit. war na mm-hmm. doon loo xam ne bii lu ñuy forcer nit ñi la. ngir ñu xam. que ni bu ñuy dugg ak bu ñuy génn. si yëpp ñu xam. waa suñu waa ji bi muy dugg <coughs> amoon na 7 milliards. waaw nga xam ne booy dugg di nga wax ne am naa lii ak lii. ñu xool li nga xam ne mooy am te loolu nga am tamit ñu vérifier ko parce que beneen saa mën nañu cee dugal loo xam ne lu ñu war a déclarer ëllëg la xam nga loolu tamit wóorut <laughs> am na koo xam ne mi ngi dugg fekk na am na loo xamante ni bi lu mu war a déclarer ëllëg la xam nga moom laa la kii ba ne ba ne ba ne boo àddina par exemple da ngay jékki-jékki sa xel di daw ci yoo xamante ni ba ne imaginer rek koo xamante ni kii jàpp na ne dañ koy fal mm-hmm. mu leer que ni peut-être day falu mm-hmm. ñi nga xamante ni wóolu nañ ko it jàpp nañ ñi day falu ñu investir ko ay mbir yoo xamante ni bi am na ko laataat muy falu. waaw comprendre xam naa mais loolu amagu ko mais da ko war a fay après. léegi bu ko dugalee ci déclaration patrimoine. yaa ni am naa lii waaw. est-ce que bu faloo bu waree am loolu te mën na ko am xam nga lépp loo gis gars yi mën nañ ko contourner ci yeneen i façon mais daal en tout cas yenn poste yi moom war nañuy exiger yenn yi nga xamante ni même bu fekkee ne bi sax lu secret lay doon comme que ñun Afrique lañ nekk. Mhm. mais ñi ko war a yëg yëg ko. xam ni lii la. am ko mën na bañ a nekk sax lu public. Mhm. mais mu nekk loo xamante ni bii daal ñi ko war a yëg dinañ yëg yëf yi. Mhm. ba bu ëllëgee tamit booy génn ñu contrôler la. parce que tamit fii Sénégal nga jékki-jékki yi naan am naa lii am naa lii am naa lii am naa lii. Ah. Euh, làmmiñ affaire ni mu ni mu léegi xam nga bu njëkk dañ daan wax. naan di wax tamit ci li mu expliqué ci wàll woowu dégg nga ko li mu wax capital économique. nekk war na war non war naa moo a mën a nekk fii mm-hmm. capital économique xam nga loolu mu wax noonu boo bëggee wax ne moom nee na day tuxal capital du Sénégal xam nga loolu tamit wax la joo xam ne lii ngay waxal nit ki waxu Amadou daa juum rek comprendre nga xam nga bu nit ñi arriératé dañ lay dégg yaa ngi def say kii ba noppi koo xamante ni kii euh, sa moroomu doom la hmm. wax ay waxam nga ñëw déformer ay waxam loolu day méngook rek boo defu ndànk rek day méngook li nga xamante ni bi li nga ñu wax ci waa ji moom. Mm. gis nañ ni waxeewut loolu mais li la waa ji wax bu boobaa dañ koy mën a dëggal. waaw du dëgg. dëgg la parce que euh, li nga li tax nga mën a soppi ay waxam. Mm. nit moom bu fekkee ne man sooy bu mën naa wax lii mas war a nga say wax. Mm. ci pénc mi ne lii nga wax. Mm-hmm. ku kuy def noonu ku ne mën ngaa def leneen. d'accord léegi nga baal ma rek euh, dafa mel ni sax daanaka jeex na waaye ñu mujjee ko rek ci bu njëkk dama la euh, dama daan dégg dinaa leen defaral ay pont dinaa leen defaral lii di ngeen def lii. mais ren yeneen discours nga dégg maanaam ku mel ni kuy setal sa bopp def naa nangami at ci barab bi sàcc ma fi xaalis mm-hmm. samay loxo set na mm-hmm. loxo yi set na nangam ak sàngam mu mel léegi beneen xeetu politique moo génn waa dinaa leen defari po loolu ay tappale woon la woon naa def lii dinaa leen defal loolu ay caaxaan la woon ñooñ ñooñu dañoo kii xam nga ñii dañoo bind seen programme wax yëf yi ni ñu ko war a defee ak ni ñu ko war a kiiwee comprendre mm-hmm. ñu ngi koy expliquer nit ñi xam nañ ko moo tax ma ne la programme tey ji boo bàyyee ba bisu baal bi ngay jàng baal bisu baal bi tey la. day jàng baal loolu erreur comprendre nga. donc ñii mën nañ baal ba noppi. Hmm. maanaam wax nañ ni ñu war a baalee yëpp expliqué nañ ko ba pare ñëwuñu ba ci jour bi ñu ñëw naan ñi ngi jàng ni ñuy baalee. ñii nag yooyu nag ñu doon wax yooyu loolu la woon rek dinaa leen defal lii dinaa leen defal laa boobu askan bi moo toll woon foofu quoi mais léegi askan wi dépassé na foofu léegi nit ñi li ñu bëgg a xam mooy nit ki mooy kan ndax am na xam-xam ndax set na maanaam ñu interroger démbam parce que ñii li ñuy wax yëpp waxuñu la maanaam dañ lay wax interroger suñu ginnaaw maanaam li romb kan mooy taxaw ne kii ab sàcc la walla ab kii ab lool waaw